nga ko teg ak noo jàngate 100 yi. waaw sant yàlla bu baax ci question bi euh, jàpp naa ne le président keroog bi muy adressé au peuple sénégalais à travers la presse nationale. Mm. leeral na ci lu bari mais ñun tamit mën nañ cee leeral ci fa nga xam ne nii fekkoon nañu fa presque 100 jours yi ak li nga xam ne nii également ay actes yu gouvernement posé la. Mm. parce que man baykat laa je suis de Saloum Taïba Niassène laa dëkk fa laa jugee gis naa. réalisation yi nga xam ne nii la président euh, def na ko les autorités. Mm-hmm. mooy euh, jël na loo xam ne nii jàpp nañ ne woo war a développer le Sénégal. Mm-hmm. mooy retour vers l'agriculture et l'élevage. agriculture boobu nag il faut que ce gouvernement ait un modèle économique basé sur l'industrialisation maanaam matière première bi nga xam ne nii constaté nañ ko ci mm-hmm. Sénégal il faut matière première boobu ñu bàyyi à chaque fois di ko importer. nañ ko exploiter euh, industrialiser ko ba nga xam ne ni dina mën a jur ay produits définis wàll woowu gëm na ne li koy may mooy il faut bu ñu bëgg ay dégg désengorger capital bii nga xam ne nii mooy Dakar euh, nit ñi foog ñu génn dakaar dem mbay ji mbay moomu am na dette boo xam ne ni régime sortant baar na ko fi mu tolloon ci quarante et milliards mm-hmm. en moins de cent jours gouvernement bi faire na en sorte que opérateur agricole yooyu fay nañ leen donc pas la boo xam ne ni def nañ ko ñaareel bo aussi ku ne xam ne ne baykat euh, li mu gën a soxla mooy engrais ak urée ak jiwu euh, taxawaay bi nga xam ne ni résime bi am na ko ci parce que euh, ay témoignages yoo xam ne ni ay mag defal nañ ma ko ma gis du loo xam ne ni lu ma inventé mais loo xam ne ni dañ ne ma daaw li ma jëndee soixante quinze mille ren 40 000 laa ko jëndee donc prix engrais bi wàññi nañ ko wàññi boo xam ne nii lu am am solo la te bi ñu jot ci nguur gi daanaka nawet bi mën nga wax ne annoncé wu na loolu gouvernement bi def ci liggéey bu am solo investir ci ay milliards presque 20 milliards de plus yoo xam ne nii tekkaat na ko ci budget euh, agriculture pour améliorer la condition des paysans loolu lu am solo la parce que à chaque fois da ngay gis ne Eh, saako engrais dafa seeroon ñi ci amoon accès bariwuñu ñaareel ba jiw man c'est la première fois man ñu jox ma jiw parce que sama carré ren am naa carré fële ci commune ba Taïba seen te dama daan fay impôt mais boo fayaan impôt dañu lay considérer ne yow doo baykat waroo am mais ñi war a am am nañ parce que ay commission yoo xam ne ni teg nañ ko ci gox goxaan yi ci cinq cent cinquante sept communes yi am ci Sénégal yëpp commission yooyu Euh, arrondissement bu nekk euh, superviseur bi jël nañ sous-préfet ba ñu teg ko fa des ma bokk ci commission bi nga xam ne nii mooy commission de distribution des semence et euh, engrais bi mm-hmm. yooyu ak chef de chef de village yi ak bépp mairie yi également donc jàpp naa ne transparence am na ci distribution semence yi ak engrais bi te baykat yi ña waroon a am ñoom ñëpp am nañ parce que sama cas man maa ngi nii dama waroon a am chaque année mais am loolu macha allah pas boo xam ne teg nañ ko ñaare bi aussi ci rupture parce que Sénégal euh, liberté de parole ah. des fois parce que man dama daal dem ci média di wax mais je recevais des menaces mm. soo demaan am na émission boo xam ne dama ko defoon Seneweb mais après ma sortie gis naa ne menaces yu extraordinaire la ñu daan recevoir mm. léegi nag les gens sont libres de dire leur pensée sans menace ni rien du tout mais boo violer la loi da am di nga am déedéet non non moi je parle au-delà de Ahmed Suzanne Camara ndax yéen les menaces là yéen les menaces là sincèrement ndax man au-delà de l'État mhm. au-delà de au-delà des sanctions liberté d'expression ku naa wax loo xamante ne intéressé wu leen naa wax loo xamante xamante ne arrangé wu leen si Sonko suba lan moo fi indi les 72 heures de diw. Mhm. les 72 heures de diw les 72 heures de diw c'est yéen nii woo ko fi indi te li tax ngeen indi ko fi mooy. non il faut nga def kenn waru ko ci Ousmane Sonko ñi nekk ci réseaux sociaux bi di wax di lii du yéen. Mhm. c'est votre argument mais ñi nekk ci réseaux sociaux bi ñoom ñooy réclamer ñooy revendiquer ni si yéen la ñu bokk te yéen ñii boobu ba tey ñooñu lu ñu jël def ko. da ngeen leen siy bàyyi. dañoo xam ne nag jaawale wu ma li ma lay wax dafa leer ngay wax nii yi c'est-à-dire gis nga gis nga man li am solo. man damay commenter man damay commenter man du gouvernement. les qui ont été posés par le gouvernement. leen nag beneen affaire liberté d'expression liberté bi moo tax ma dugg si. non non la liberté moo tax ma la. moo tax ma la ndax da liberté ni menace. non non non am na ñoo xam ne ñemewuñu woon génn. di wax bien liberté d'expression bi ngay wax mën nañ ci boole waaw da ñëw léegi Aliou mhm. kay euh, liberté d'expression bi ñuy wax mën nañ ci émission moom mënoo ñu see génne ndax ñun ñoo leen di jox kàddu mais yéen da ngeen ñoo bëgg a museler da ngeen ñoo nata may ma ma yeggali da ngeen ñoo bëgg a banque da ñoo bëgg a tënk c'est une question fu mu tegu c'est parce que il y une certaine presse boo xam ne da ngeen a jàpp ni bi ngeen nekkee sous l'opposition ñoom dañ leen doon ŋàññi wala dañ doon nangam ak nangam en l'occurrence il y a Madiambal il y a Bougane il y a tant d'autres waa ITV et cetera waa GFM ñu toog ba le 15 ñuy doog a fay aujourd'hui fisc yi tegu seen kaw et comme par ricochet et par hasard ñu indeeti ne convention l'ONAS teg nañ ko fële waaye port autonome de Dakar amatul benn convention bu muy signer benn presse loolu liberté d'expression boobu fan ngeen ko fan ngeen jàpp ni lool la lan la Ousmane Sonko waxul président Macky Sall lu dul lu lu bokkut a xanaa tey am nga doom loolu de lañ jàpp ni waxu waxu ko ko wax dëgg fa yàlla mais lu ngeen xalaat rek wax na ko ko injure insulte nañ waxante dëgg rek ñun ñoo toog nii yaa ngi dégg aujourd'hui parce que nee na bugguma cee jaaraat parce que le présent représente une institution moom mi nga xamante ni moom mooy euh, ki ñu war a defee rek tey tey donc moom am na ay kàddu yu mu yëkkati liberté d'expression bi nga bi nga yëkkati ci rupture bi moo tax man ma lay laaj fan la aju d'après li ma la limal yépp après Aliou doogu ñëw merci beaucoup dafa am loo xam ne du élégance du respect aussi en tant que la clé de voûte des institutions boo taxawee di wax loo xam ne ni yow sa bopp mënoo ko justifier non non non président Ousmane Sonko moom c'est un cas exceptionnel. Eh li ko li ko le régime sortant def. Eh ci violer ses droits. parce que sànq ci al euh, à l'entame de tes propos wax nga ko. Mm. nee na cas de diffamation bu gaawee ni bu président Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko rek la ñëw parce que loolu yow yaa ko wax sànq. moo tax président Ousmane Sonko. Mm. dem nañ barricadé nañ ko cinquante cinq jours. Mm. amul benn texte administratif ni juridique boo xam ne justifié na loolu. donc kooku boo taxawee ne. Euh, lépp lu ne wax na ko président Macky Sall mais li ko Macky Sall def man jàpp naa ne ci àddina ñu def ko opposant bu mel noonu nga taxaw fair face di résister avec vos moyens de bord mais en respectant li nga xam ne nii mooy état parce que nit ñi dañuy jaawale à chaque fois état ak nit ñi koy incarner respect état respect institution yi respect juridiction yi respect magistrat yi Ousmane Sonko da ko daan def la loi ah, bi ñu tënk constitution bi nga xam ne mooy charte réew mi mm. Mm. constitution boobu dafa am ku nekk loo xam ne dala ko jox mm. jàpp naa ne un opposant surtout réforme bi nga xam ne en 2014 def nañ ko ci respect bi nga xam ne nii wala pouvoir bi nga xam ne war nañ koo jox le chef de l'opposition pouvoir boobu ce n'est uniquement théorique mais dans la pratique nga doon gis ne président Ousmane Sonko li ñu ko def ñaanuma yàlla ñu def ko keneen te keneen ku ñu ko defoon ñun waa Pastef ñuy njëkk a jug xeex la mm-hmm. parce que dañoo gëm ne réew mi ñun ñoo ko war a mën a defar mm-hmm. mais c'est pas parce que tu as droit à la parole tout permis da xas di saaga ki nga xam ne nii moo ñu yilif mooy suñu kilifa ñun ñëpp loolu yéen sax waru leen ko apprécier mm-hmm. donc jàpp nañ ne tey Ahmed Suzanne Camara bu taxawee Euh, war a répondre ci wax yoo xam ne nii jàpp nañ new du wax ju respect du wax joo xam ne ni nit ku normal war nga koo wax kooku euh, nañu jéem a millier bi. d'accord très bien franchement.